mbokk internet ñu ngeen di nuyu di leen dalalaat ci limametti.com di leen remercier comme à chaque fois ci topp bi ngeen ñu topp feebar bi nga xam ne moom coronavirus waral ba ku nekk toog sa kër kenn mënatul dem kenn mënatul ñëw waaye nag loolu du war a ba waa limametti point com bañ leen a jox li nga xam ne ñoom ñooy xibaar yi ñoom nag dinañ gëstu li nga xam ne moom moo fi jot a xew xam ne moom mooy limametti point com xibaar yi tofta yi ñeel li nga xam ni moom mooy coronavirus ci la ñuy tàmbaleeg yéen daal di ñëw ak yéen ci xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a xew ginnaaw feebar boobu ñu daal koy dooree ak point bi nga xam ne moom mooy point coronavirus nga xam ne bis bu ne dinañ ko amal fële nga tey nag daal dinañ annoncé 35 personnes yoo xam ne yokku nañ ci lim bi nga xam ne amoon nañ coronavirus ci biir cinq yooyu nag 34 ci ñoom di ay cas contact maanaam ñu jëflanteeg ñoo xam ne am nañ coronavirus kenn koo xam ne kaa communautaire la xamuñu fi nga xam ne moom la jëlee doomu jàngoro ji ki nga xam ne moom mooy Marie Xemes Ngom Ndiaye daal dinañu daal dinay annoncé tamit yoo xam ne daal dinañu wér ci li nga xam ne moom mooy coronavirus a ñibbi fa li nga xam ne moom mooy seen njaboot cas communautaire yi nga xam ne nag na fi na torop tax na ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ministère de l' intérieur daal moom mooy port du masque fépp foo xam ne dajaloo dafay am ay nit di fa dajaloo dañu fay sol li nga xam ne moom mooy masque képp ku solul masque ay daan dinañ tegul sa kaw ci benn amande boo xam ne dina dem ba ba ci li nga xam ne moom mooy 15000 francs CFA feebar bi nag di covid 19 xam ngeen ni mi ngi def ay ravage fi nga xam ne moom mooy àdduna sépp mi ngi lëmbee àdduna si di rey ñi nga xam ne moom mooy nit ñu bëri rawatina fa li nga xam ne moom mooy États-Unis nga xam ne bokk na sax ci dëkk yi nga xam ne ñun ñoo ëpp ñu am li nga xam ne moom mooy feebar bi bëri ëpp tam ñi nga xam ne ñoom ñoo fa daal di génn àdduna ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus ay sénégalais yoo xam ne nekk nañ fa li nga xam ne moom mooy États-Unis toll ci 22 ñoom daal dinañu génn àdduna ci li nga xam ne moom mooy coronavirus depuis bi jàngoro bi commencé ba tey waaye li nga xam ne moom moo gën a metti ci mbir mi mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy seeni famille duñu mën a jot seen kooru mbokk mi nga xam ni dafa génn àdduna ci coronavirus ngir jébal ko boromam ni mu ko waree ndax li ñuy bañ moom mooy wàllante bi ndax ñëpp xam nañ dañuy jëflante ñoom maanaam dañuy nekk en contact ak yow toujours ci coronavirus ñu wax ci Sénégal cinquième cas bi nga xam ne moom la enregistré di cas de boo xam ne amaat na ko ci li nga xam ne moom mooy feebar waaye lim bi mi ngi commencé di yokk parce que ci diggante dimanche ak lundi ñaari cas daal dinañu am ay cas de ci li nga xam ne moom mooy coronavirus bi ñëpp di demandé nag ci turu li nga xam ne moom mooy 74 ans moom mi ngi foofu sax la daal di li nga xam ne moom mooy doomu jàngoro ci parce benn nit moom moo jógee fa nga xam ne moom mooy Kër Massar ñëw këram seetsi ko daal di ko koy wàll wàllaale ko ki nga xam ne moom mooy doomam bu nga xam ne moom mooy centre hospitalier bu Fann nekk ci benn centre boo xam ne bokk na ci ñi ñu fajee coronavirus ci la mujjee ñàkk bakkanam ci jàngoro ji kon nag ñu mën a xam ne ki nga xam ne moom mooy Bamba di maire bu Médina daal dinay nakarlu bu baax attitude bi nga xam ne jeune Médina yi am nañ ko gis ngeen ci ñaari fan yoo xam ne jeunes yi daal dinañu génn maanaam ñàkk respecté li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi di génn benn jour bi ñu mettroon en quarantaine ba ñu dellu si nga xam ni moom mooy seen koñ loolu nag tax ba ki nga xam ni moom mooy Bamba Fall daal di nakarlu bu baax li nga xam ni moom mooy attitude jeune yooyu mi ngi wax ni sax ñoom ñi génnoon di fay lakk bi fële nga xam ni moom mooy rue ñi ngi woon à 50 mètres ci famille boobu nga xam ne dañ leen mettroon à quarantaine loolu nag nekk loo xam ni wóorul dara ci li nga xam ne moom mooy feebar bi di coronavirus ki nga gàndu de la promotion de l'astronomie ñoom nag daal di ni ñu xamal ne fi nga xam ne moom mooy Sénégal dinañ commencé lii di weeru koor bi samedi avril li tax nag ñu daal koy commencé avril ci samedi avril boobu ñoom daal nañ koy leeral Sénégal nee nañ jeudi bi nga xam ne moom mooy jeudi si guddi nga xam ne dañoo war a xool li nga xam ne moom mooy croissant lunaire bi asamaan si dafay daal lëndëm ba duñu gis li nga xam ne moom mooy croissant lunaire bi ñoom loolu lañ daal loolu lañ daal di prévoir ba daal di wax ne li nga xam ne weeru koor bi dinañ ko mooy Sénégal samedi bi nga xam ne moom mooy tombeek avril ñu ñuy xamal ni nag fi nga xam ne moom mooy Sénégal ren particularité daf fi daal am parce li nga xam ne moom mooy weeru koor bi dañu koy woor ci li nga xam ne moom mooy couvre-feu maanaam kenn dootul génn Fallou Ndiaye Doss ginnaaw ak ay fan yu bëri yu toftalu ci génn àddunaam fële nga xam ne moom mooy Espagne ñu bëri doon laalaamee ndax li nga xam ne moom moom moom du corps du ñu leen di xamal ni nekkoon na nit koo xam ne ku ràññeeku la ci wàllum taskatu xibaar fi nga xam ne moom mooy Sénégal daal dinay jaar ci rajo yu bëri yu ci mel ni fajiri Fadjri ak yeneen rajo communautaire ba daal di mujjee fi nga xam ne moom mooy Sen TV ñu koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te te daal di koy jéggal li nga xam ne moom mooy ay bàkkaaram voilà mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey ci seen revue de presse nekkoon li nga xam ne moo gënoon fës ci information yi fi jot a xew li ngeen xam ne nag moom mooy feebar bi di coronavirus tax ba kenn mënatul génn dem fenn ba tax ñu leen di defal revue de presse bi ci moyens yi nga xam ne moom lañ am ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp limametti ndax information bi limametti la